asalaamaaleykum euh, gars yi maa ngi leen di nuyu di leen giar waaw euh, man maa ngi tudd Mamadou Moustapha Cissé waaw euh, di président mouvement Aar Sa Gox waaw tey dañu ñëwoon fii waaw pour defar parce que fii sunu gox dafa am luñ fi seetlu woon waaw fii ñu taxaw sunu juste sama ginnaaw. waaw daf fi amoon lu fi amoon benn anarchie bu fi amoon waaw voilà euh, am euh, ay euh, vendeur de stupéfiants et tout et puis cadre de vie bi aussi c'était pas sain voilà et puis ñun xale yu gox yi ñun ñi fi juddoo ñun ñi fi juddoo yaroo fi màggee fi voilà ñu gis ni que ni ñun ñoo mën a jóg defar suñu gox waaw ñun rek ñoo ko mën a defar waaw ñun ñu jóg ah, ah ak appui sunu maman yi ak sunu euh, papa yi nekk ci euh, ci gox gi yëpp ci koñ bi yëpp waaw ñu waxtaan seeg ñoom ñu ànd seeg ñun. Euh, ba tey jii nii li ñu jot def mooy ñu ngi nettoyer fii waaw commencé nañ par nettoyer te population bi ñëpp génn nañu waaw pour pour pour pour pour jàpp ci ci ci liggéey bi waaw ñun nag ñun dañu génn. Euh, mouvement la bo xamante c'est apolitique waaw dañu jóg pour defar suñu gox waaw pour euh, ñu am cadre de vie bu sain suñu dom yeeg euh, suñu yaay yeeg suñu suñu suñu suñu suñu mag yeeg rax yi ñëpp mun fi dox en sécurité té am nañ ay projet am nañ ay projet yu bari pour fi ay projet de pavage Hein? voilà espace vert éclairage waaw pour pour gardiennage pour sécurité wu quartier bi asalaamaaleykum maa ngi tudd Ndeye Aram Sey dëkk ci quartier bi sunuy doom nekk ci quartier bi gis li fi amoon te mu yéem ñu ñun ñëpp te kenn mënu ko woon wax xale yu jógal seen bopp di ko def lii nag lu yéeme la parce que li fi amoon ay mandikat ay agresseur ay délinquant suba sunu xëyee yendu si ci koñ bi di togg ñoom ñu dem liggéeyi ñu ni sonal ci saxaar si këriñ gi fattuñu buñ koy sotti kër yëpp ay tëju alhamdulilahi la ñuy wax léegi alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi naan képp koo xam ni nag mën nga leen jàppale si li ñuy def ngir yàlla ak yonent bi jàppale leen leen xale yu baax lanu yu jóg di liggéey seen koñ liggéey sa koñ nag boo ko jëkkee mun nga liggéey sa réew ñu ngi leen ñaan lii ñuy def yàlla bu mu dakk te na am continuité totale jërëjëf kontaan nañu si yéen yan na yàlla kontaan ci yéen yal na leen yàlla lafal cat yal na leen yàlla dàqal seytaane musal leen ci cat ak làmmiñ ak bët ak xel